jërë ngeen jëf mbokk yi ñu àddog yéen ci li yéen kay xëye niki tey ci àjuma ji doore ko le quotidien yéen kay xetam bu njëkk daal dina nataalu Ousmane Sonko ak kii di Amadou Ba lañ ci gis débat bi nga xamante ni nam nañ ko amal Amadou Ba àddunañ ci ni débat bi dafa war a bootu ci lépp li nga xamante ni mooy aspect yu soxal réewum Sénégal jamono jooju nag Amadou Ba ba tey ji jàpp na daane lu jëm ci koppar waaye tamit li nga xamante ni rek moom limaanu jëwriñ bi fi nekk jot na ko junju ci wàllum du balum xaalis justice jamono jooje le journal 24 heures moom dafa dikkaat bu baax ci téeméeru euh, condition yi nga xamante ko bokk na rek mu respecté ko waaye tamit yi nga xamante ni euh, moom la fi fësal naka la ñu def même bu fekkente ne dafa tolloog moom waaye daal nañu teg euh, jumtuwaay yi nga xamante ne war na mu tontu ci li nga xamante ne askan wi soxla nañ ko daal di dékku yeneen i xibaar l'exclusive moom dafa ñëwaat rek nataal luy toll ci ñi nga xamante ni dañ nekkoon ci APR fas yéene wutali ñi nga xamante ñoo di ko ràññee ci transhumance vers Pastef nataalu ki nga xamante ni Aliou Sarr la ki nga xam ne mooy Salif Samb Déthié Fall euh, Fally Seck ki nga xamante ni tamit moo di Tamsir Gueye ak ceex Diagne Mamboy Diaw ak ci mujj Samba Ndiaye ñoom ñëpp nag bàyyi nañ ginnaaw APR fas yéene wutali nag ñi nga xamante ni ñooy nguur gu yees wi di ay maire waaye tamit ay yeneen euh, député ay PCA ñoo xamante ne daal jamono ji Pastef rek la ñu bëgg a nekkal ko moom dafa dikkaat ci leneen mbir jëm ci laataa ni ki démb PCA bu jur coow Samba Ndiaye mi nga xamante ne fal nañ ko ci bopp waa Silem yi jur na coow ci waa Pastef ndax bëgguñu euh, tey ànduñu ci ñu daal di ko fal ndax ne nag lu yàggul dara laata mu fay jébbalu lu mu yëkkul nguur gi fi nekk amul waral rek nga xam ne mooy Guy Marius Sagna Waly Diouf Bodian euh, nag bi nga xamante ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye fayal na ko kii di Samba Ndiaye ci beneen wàll ba Les Échos dafa dikkaat rek nag ci recteur bu université a Seck bu Ziguinchor di wàllum njàng mu kawe responsable départemental bu PASTEF kii di professeur Alassane Diédhiou daal dina wuutu du Ka fa nga xamante ni fa la nekkoon beneen xibaar di yéene kaay bi le point moom dafa ñaw rek ci euh, xëtam bu njëkk kàddu yi nga xamante ni waa di nag parti bi nga xamante ni rek kii di Moustapha Niass ko jiite ñoom nag kontaan ñu ci Amadou Ba ndax nag nu mu doxalee ci wàllum investiture buñ sukkandikoo ci docteur euh, ki nga xamante ni rek moo di Mbacké Dia membre bureau politique nag bu Amadou Ba euh, dafa war a jégalu ci kanamu ki nga xamante ni moo di Moustapha Niass waaye itam ci kanamu Sénégal ndaxte nag jàpp nañ ne lu mu def doxul rafetul dafa mel ni rek dafa leen wor di ay kàddoom la turbine moom dafa ñëwaat rek ci beneen mbir wàllum yoon dikkaleeg mbiru Bougane Gueye dani wàllum saisine moom mi boo mooy sax nag daañu woo ñi nga xamante ne mooy kuréelu mbootaayu xeeti di Nations Unies ginnaaw ba ñu ko tegee loxo ci anam boo xamante ne jéggiwul waaye tamit faw ñu àdduwaat ci anam bu ñuy foqati ak kilifu nit ñi fii ci Sénégal ak euh, lu jëm ci rado ñoom nag ñu ngi woote ngir dal daal dellu si ci réew mi jamono jooju Abass Fall mi ngi déclaré nag Déthié Fall persona non grata fa nga xamante ni moo di euh, commune bu Médina kii di Ameth Ndoye moom nag jamono ji mu ngi ci loxo gendarmerie ginnaaw ba mu amale euh, seeni mouvement bi nga xamante ni ñu ko doon lancé ni ki démb lañ ko daal di teg loxo moom Ameth Ndoye nag xamul ba tey li tax ñu daal di ko teg loxool yéen kaay bi dina ci di dikkaat ci nu mu gën a yaatoo le point moom dafa dikkaat ci wàllum koppar rek marché bu toll 71 milliards de francs CFA boo xamante ne rek moom la ñuy tudd ca diwaanu ministère de la santé ak entreprise ACD parquet financier léegi tey rek mu dugg ci mbir mi faux ak usage de faux lañ fa nemmeeku marché bi jot nañ ci amal surfacturation bu tollu ci 20 milliards ci suñu koppar marché bi suñu woon nañ tamit nag lu toll ci ay factures yoo xamante ni ah, kenn gisu ko ak fan la daal di jaar jëwriñ bi ñu dénk wàllum nag koppar fii ci Sénégal nee na dina ci addu xool mbir mi ville ñoom ñi ngi àddu ci sud quotidien fexe rek nag dal dellu ci waat fii ci réew mi jamono ji nga xamante ni élection législative yi mi ngi am doon na nag ab kuréel goo xamante ni ba ñu moomee suñu ba tey ji ak yelleefu nit ñu mun a am seeni sañ-sañ di wax moo tax tey ji ñu daal di taxawaat wonewaat seeni doole waaye tamit liggéey bi nga xamante ni moo leen tax a jox libération yéenekaay yi moom dafa ñëw rek ci enquête bi nga xamante ni fësal nañ ko ci mbiru Dieynaba Ndiaye ak borom këram gi docteur Mbacke ñoom nag jot nañu xam le ni daal dinañu tegaat juróomeelu nit ki nga xamante ni jàpp nañu daal bokk nañ ci ginnaaw daf doon bëgg a daw ngir rek làqu ci waa police daal dinañ ko teg loxo al docteur Aline Badara Mbacke ak nitam ñoom ñu ngi ci euh, jamono ji ci loxo waaye yoon ndax nag jàpp nañ ñoom ñoo dóor soxnaam si di Dieynaba Sangaré Ndiaye niki juma ji tey ji euh, la ñu fas yéene leen a jàpp nag defeere leen ba noppi ñu leen di visé waat ci beneen mbir koo xamante ñu ngi di toppee ci lu jëm ci ku euh, blessé candidature volontaire ñu jeexalee nag yéenekaay ak wàllum tàggat yaram defati nañu suñu mënin ci kaw ñi di waa Égypte Sénégal euh, Coupe d'Afrique beach soccer nag gaynde yi daal dinañu làpp waa Égypte ñaari bal ci benn loolee tax nag ñu daal di fas yéene taxaw final ak ñi di waa Mauritanie jamono joojee beneen mbégte ci ñaari doomu Sénégal di CAF Awards ci fukki ñi nga xamante ne rek jot nañu tënk Lamine Camara ak kii di euh, El Hadji Malick Diouf bokk nañ ci ñi nga xamante ne rek wal nañ leen jox ab raaya